ربا asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ah, di leen xamal ni liggéey bi tàmbali na ñu ngi ci waañ bi di waajal bernde yeeg yooyu fi mu toll ñu ngi toll ci añ yi ñu ngi doon defar yaasa yeeg yooyu war a jublu buñ ci paree daal di songu reer beeg allahu rabbi foofu lañ ci tolloogoon mbokk taalibe yegg na nañ ñu ngi ci biir liggéey bi. fi mu toll ñu ngi ci añ yi bu ñu paree ci añ rek dañuy daal di songu reer yi bu ko defee suba tamit ñu continuer enseigné waat xéwal yi mbokki taalibe yooyu ci perne yi foofu lañ ci tollu daanaka lépp jàpp ne na fi mu toll nii liggéey ngi avancé bu baax baax wax yàlla ñu ngi sant bu baax a baax. waaw ñii moom mooy sunu mbokki taalibe yi Baay Faal yi yaay booy yi ñu ngi nekk ci raxasum ginaar gi ñi ci des ñu ngi ca biir nekk ci bagage yooyu daal ci wàccaay yi macha allah jaay booy yi nga xamante ni ñoo ñooy jëmmal liggéey bi daal def ci Pastef nag xaaruñu ci kenn ci dara macha allah. yaa mën na nekk ba tey waaw. waaw naa fii moom bokkoon na si fenn ci barab bi li fi ñu doon daggee ndawal geeg yooyu mais daanaka fii kii nañ ci lu ci baree bari ci yooyu lañ ci tolloon ak yooyu. daanaka xar yeeg yooyu yëpp kii nañu ñi ci des dañ koy daal di mottale rek. waaw waaw fii mooy bousez leen fi ndawal geeg lépp rek foofu lañ ko doon lijjanteeg yooyu. ñu ko ci fii lañ doon waajalee mbir mi ndawal geeg gàtt yeeg yooyu yëpp rek fii lañ ko doon defaree incha mhm. xam naa li ci des mi ngi waat nii mbokk yaay booy ñu ngi nii ci biir li jëmaat ci biir kii ci lenn la ci stock yi nga xamante ni ndugg meeg yu sew yi ñu doon defar ak xeet yeeg yooyu waajal la ci des ñu ngi ko stocké fële pour mbokki taalibe yi mais fii moom dañ fiy waajalee rek de maanaam li nga xam ne moom la waañ bi soxla rek loolu rek lañuy ñuy lañu lañu lañu la ñu kii fii daal leneen li nga xamante ni moo ci des nag moom dañuy daati kii ñu ko mel ni comme gis nga sunu mbokk Baay Faal yi ñoom liggéey bi duñ ci xaar kenn ñu ngi noonu ci marinade bi nekk ci bagage yi moom ñu ñu xarañ lool daati ci am am taxawaay bu yéeme sax beneen bi ci desit mi ñu nekk mi nekk noonu ku ci mel ni ñoom soxna Roqaya ak yaay booy ñu nekk ci ci wàllum ñeex mi xaar yeeg yooyu daal yaakaar naa ni ba tey it yii yëpp fi ñu doon kii yeeg ginnaaw yi tamit ñu nekkaat ci kii waajal lakk ndawal geeg ginaar yeeg xeet yeeg yooyu ko waajal daanaka fii moom ci lañuy ñuy gën a kiyee yëpp dafay nekk ci waaw waaw mën na nekk comme bajoor yi xanaa ngeen kii ko rek ma xof liggéey bi toll ak yooyu mu gën a yaatu rek daal di ah bu ragal loolu Fall Fall Ndiaga jees lu moom rek liggéey bi fi ci toll ak yooyu. rek. liggéey moom fi ci toll xanaa. ah ba bët a ngi ci wàllum añ yi daal. yoon yi. maanaam lu nu fàggu def ko ci seen i biir daal. bu ko defee nag ñu doog a commencé cant gi. waaw nekk ci rek. fas yéene sant Serigne Touba rek. te di ci ngërëm bi yàlla defal ñu ci jàmm tawféex rek defal ñu ci ndam lu tawféexe lool te sedd guy ci barke Fallaaw Bousso waaw ñu defaat ko ay déwéni déwéni rek incha allah am nañ ci rafet njort bu baax a baax ne dina aw yoon daal bu soobee yàlla suñu borom waaw yaakaar naa ni bu dee li jëmoon ci wàññi comme fii lañ ci tolloo bu toon à part yeneen yi ci des rek mooy li nekkaat ci biti rek ak waajal gi waaw yaakaar yaakaar naa ne loolu moo ci nekk waaw ziar naa la ziar naa la de waaw suma waaw ñu ngi lay delloo ziar waaleykum salaam soxna Kiné Sakho Touba Dayton Ohio. ah ñu ngi seree daanaka ni ngeen ko gisee nii. ñu ngi defar euh, lakk ni ginaar yi pour yaasa bi ci kanam tuuti dañu nar a teg euh, mbaxal bi dañu bëgg a tam tey bu soobee yàlla dalal gan yi ci jàkka ja ñu ngi bëgg a togg tamit cere après ñu aussi préparer ndékki yi pour suba incha allah. ah vraiment neex na torop torop torop mbégte bu mat sëkk lañ si am ndaxte ñun dara ñoruñu lu dul sëriñ Touba te li ñuy liggéey nii sëñ bi rekk a ko waral. moo tax ñu bàyyi suñu yitte bàyyi suñuy liggéey bàyyi suñu lépp pour sëriñ bi kese waaw loolu kese la loolu rek lañ si ngërëmal sëñ bi rek lañ si jublu loolu kese lañ si bëgg. sëriñ Touba dafa ma defal lu bare lu bare loo xamante ne dañ ko sax daanaka mënut a wax dañ ko dund ci fii ak Sénégal dafay nekk nag lu diis waaye daal xam naa ne moom sëriñ bi defal nañu lu bare te sunu lépp sëriñ bi la. ñun moom la ñuy dund 24 heures sur 24. misaal bi ñu la si mën a jox mooy euh, maa ngi fàttaliku am na maa ngi woon Sénégal comme ni mu naan rek boo ma defalee ma yokk la ma yoroon euh, li ma daanaka li ma yoroon si man màggal jot daanaka munuma woon lu bëri ma ne xaaral ma yëkkati dara lu nga xam ne yorumoon dara de man li ma yoroon rek nga xam ne waroon naa si faj samay soxla ma def ko si. te moo ko si defee wallaay li ma si gis dafa maa yéem donc sëñ bi daal dafa ñoo taxaw ci bu ne ñu koy sant vraiment moo tax ñoo ñu waral ñu bàyyi suñu lépp suñuy mbokk ak suñuy xarit yëpp ñoo wuy siñu waaw loolu daal lañ si jublu moo tax mbokk taalibe yëpp jóge fu ne te vraiment mu nekk lu nga xam ne daal ñun daytoon ñu ngi koy soog a dund daytoon nag nekk dëkk bu ndaw ñuy dund lii tey ñu am si mbégte bu baax a baax a baax jërëjëf merci beaucoup am sama àdduna ak sama àllaaxira sëñ Tuubaa lépp la ma defal li ma sëñ Tuubaa defal nekkul lu ma mën a wax man lu may yëg la lu may dund maanaam nii comme li nga wax di dugg di dem ak a ñëw foofu la ñuy yëgee sëriñ bi sëriñ bi kenn ku nekk fam la jagleel ñii ci xasida yi ñii ci durus bi ñii ci leneen mais ñun ci xidma yi comme ni ko jëriñ ma demba di waxee way gëm yàlla ñuy toog kuréel ñu ñëw bernde leen bo bernde mbokki taal yi ñun loolu loolu la ñuy yëgee suñu bopp ci sëriñ Tuubaa te it am na ci niveau yum ñu fekkoon ak fi mu ñu indi tey Serigne Touba li mu def ci ñun rëy na trop munu maanaam lott nañ ci di ko génne ci sunuy kàddu lim ñu defal dafa rëy kon saa saa suñu soxlaa rek ak lu ñu mën a am dañu ko ciy dem ba mu jeex tàkk soxlaatuñ sunu bopp bu sëriñ bi soxlaa rek ñun jeexal nañu ba sëriñ bi soxlaatul dara ci ñun ñu soog a nekkaat ci yitte yi loolu lañu ñu sëñ Touba fii laa gën a dundee Serigne Touba daan naa ko dund Sénégal mais li may dundee fii sëriñ Touba li may liggéeyalee fii Serigne Touba mosuma woon a ne dinaa toll foofu ci liggéeyal mais nag liggéey bi lañ naan Serigne Touba képp ku mu nam ma liggéeyal rek moom moo lay moo lay moo lay womatal boppam xëy na du sax njàmbarte du sax pasteef mais Serigne bi moo namm loolu ci ñoom kon dañ koy daa ci ànd ak moom waaw sëriñ bi daal defal nañu luñ mënta wax. waaw xasida de xasaay di moom yaa ngi koy dégg noonu ci ginnaaw la tànk muy rëkk rek xol bi di sedd dootoo yëg dara coono teg bànneex rek looy gën a actif ñaq wi di rot xel mi di gën a dal force bi di gën a bari. Sëriñ Bamba mooy Amérique sëñ Bamba bu soxla amatul dara lu ñuy xaar fay bu ñu amee jàmm nekk fii di liggéey di daan doole dimbali waajur yi ak njaboot yi lépp Sëriñ Bamba ndax bu ko defatoon ci géej ga tey duñu am jot gu ba di ko def fii kon nag yaakaar naa ne bu ñu ñëwee Amérique nekkul ne dañ fay ñëw rek ngir am fi koom mais mission lañ ci Sëriñ Bamba am na lu ñu war a wane kon yaakaar naa ni lii warteef la daal waaw sëñ Bamba dañ ko war a wane fépp ba ñoo xam ni sëñ Bamba yaatu na du Touba du faneen Sénégal àdduna la rawatina fii ci Amérique waaw jërëjëf